Thank you alors alors merci euh, pour cette page de pub euh, donc au niveau de la régie Genskin euh, suñu partenaire bi nga xamante ni moom moo leen di may météo di leen gërëm bu baax a baax dans la deuxième partie dinaa ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy produit yu Genskin nga xamante ni naaj bi ni mu tàngee nii moom moo baax pour protéger suñu barrière cutanée ci rayon soleil yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di rek daal di yàq mais surtout que ne du niin boo ko xësee ba def dafay fondre kon ci sa ci sa yaram amul euh, li nga xamante ni ay particules la yuy euh, daal di euh, kon li daal di obstruer les pores c'est très important donc dans la deuxième partie incha allah dina ñëw ak yéen ci gène skin ñu ñëw ak yéen ci météo bi comme ni ngeen ko gisee nag niir yi daanaka Sénégal bi yëpp nawetal boo leen seetloo démb daanaka naaj amoon na waaye danoo nekk donc di dem ak ñëw loolu la ñu nemmeeku tey ji itamit fii ci Sénégal bi yëpp boo leen xoolee température yi ci suba si nag comme d'habitude dafay euh, xaw a wàcc bu baax a baax Saint-Louis ak Dakar ñi ngi ci 26 euh, degré euh, tey jii ci suba boo xoolee ci digg réew mi 25 degré ca Diourbel vingt 26 également ca Tambacounda. Matam nag moo gën a tàng ñoom ñi ngi ci 30 euh, degré maatam parce que booy xool Matam euh, jàpp kon Tambacounda foofu la température yi euh, di gën a kon kon tàngee ci bët Saalum bi foofu nag taw la ñuy rek daal di nemmeeku diggante Kolda Kédougou Sédhiou ak li nga xamante ni moom mooy Ziguinchor Kaolack itamit ma ngay tepp teppal maanaam foofu aussi nañ fa daal di am li nga xamante ni moom mooy ay taw loolu nag température yi tey jii ci suba la bu ñu demee ba ngoon nag température comme d'habitude dina xaw a yee waaye yéeg bi nag du xa du ko du demee noonu xool leen 31 euh, degré euh, diggante Saint-Louis ak dakaar ñu ngi ci 30 degré Thiès euh, sës rëkk ci Dakar ñoom ñu ngi ci 33 degré Tambacounda mi ngi taw ba léegi Kolda ak Kédougou Ziguinchor mi ngi niiral waaye ba léegi seen température yi mi ngi diggante 35 jàpp 30 degré boo leen demee ci diggu réew mi foofee nag am na ay niir am na ay nuages waaye taw kon météo nee na du fa rek daal di am ñu ngi ci 38 degré. Euh, ci ay euh, kon diwaan yu ci mel ni Kaffrine 34 kon euh, ca Diourbel bu ñu ñëwee ci littoral bi nag xam ngeen ne tàngaay bi bu ñëwee ngoon gi moom mooy gën a tàng ñi ngi ci 30 degré fii ci Ndakaaru bu ñu demee ba Saint-Louis ñi ngi ci 31 degré mu nekk température yi nga xamante ni moom mooy température ngoon yi. ñu ñëw nag ci li nga xamante ni moom mooy euh, mare yi xam ngeen ne dañ koy faral di wax géej moom day fer ak a fees moo tax nag suñu mbokk mool yi euh, chaque fois bu ñuy fàtte euh, seen ceinture kaaraange 4 heures du matin bu mu jotee ba tekk fanweeri simili ak juróom-ñeent amoon nañu nag marée haute maanaam géej gi feesoon na loolu bu 16h jotee euh, ba teg kon ñeent fukki simili dinañ am beneen euh, géej euh, bu fees ci jamono ji nag ci kon géej gu fees lañu rekk rek daal di nekk géej gi dina fer bu 10h jotee ba teg fanweeri simili ak ñaar beneen fer bi 23h lay nekk jàpp 2 minutes maanaam 11h ci guddi incha allah si la géej gi nara a fer waaye chaque fois dañ koy wax suñu mbokku mool Euh, bu ñuy dem nañu yër météo bi waaye surtout euh, yor seen ceinture euh, kaarange ci weneen wàll ñu ñëw kon ci jant bi xam ngeen ne jant bi dana fenk bu 6 heures du matin jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ñeent maanaam 6 heures 49 incha allah dana soo bu 19 jotee ba teg 41 minutes. voilà mu nekkoon météo wu tey jii ñu àndoon si ak suñu sponsor Genskin nee naa leen si kanam dinaa ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom moo ñeel. Euh, wàllum euh, kon propriété caractéristique yi nga xamante ni moom moo nekk ci euh, kon lait bi nga xamante ni moom moo baax nekk une crème très adaptée si suñuy peau du ñu rek daal di kon jàppale ci lu jëm nag ci rayon solaire yi kon xanaa nu ñuy def si ndimbalu suñu donc waa régie ñu dem fekki ki nga xamante ni moom mooy Babacar Fall. Euh, foofee ca RFM ñu ànd ak euh, kon seen invité normalement c'est dans euh, donc quelques minutes peut-être le temps de reprendre le le, le plateau je pense que invité Babacar